alors salaamaaleykum dalal nag jàmm ci seen podcast Wolof Tech euh, bi nga xamante ni mooy ñu jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey nag dafa nekk journée bu spécial parce que journée la boo xamante ni dañuy commencer benn saison bu bees ci podcast Wolof Tech alors comme ni ñu ko defee nag Farscastu Wolof Tech depuis quatre ans ñu ngi koy def à chaque fois dañuy waxtaan ci xarala yu bees yi mais di ko wax ci kàllaamu wolof. alors tey nag ci saison bii nag dafa ñëw ci contexte boo xamante ni contexte bu spécial tamit mu nekk élection présidentielle yi alors ci contexte boobu nag tey. ñu ñëw ci fi nga xamante ni mooy dalal suñu premier euh, euh, invité bi nga xamante ni je pense que jaratul sax ñu koy présenter parce que Sénégal yëpp xam nañ ko mu nekk président moom Mamadou Diop Decroix alors président dalal ak jàmm ci podcast Wolof teg jaajëf euh, mm-hmm. Ibrahima maa ngi lay gërëm di la sant ci li mm-hmm. ngeen ma dalal ci mm-hmm. seen euh, ëtt bi. Wolof Tech. Euh, di nuyu ñi nga àndal. di nuyu aussi ñi nga xam ñu ngi ñuy seetaan. exactement. di leen gërëm di leen sant. ci seen initiative bi parce que. Euh, li ngeen di dox li ngeen di yëkkati ci euh, technologie ñu di ko war di wax ci lakk yi ñu nàmp dafa am solo trop. exactement. waaw xam naa du ñàkk waxtaan bi dina ci dina ci dikk. Mm-hmm. Euh, kon maa ngi ci ma di leen ci sant. alors suñu première laaj bi nga xamante ni euh, moom lañ la bëgg laaj tey euh, xam nañ ne fu nekk nit ñaa ngi seetaan di ñu déglu ci podcast Wolof Tech bi surtout ñi nga xamante ni dañoo bëgg xarala yu bees maanaam technologie te euh, voilà tey moo tax tey ñu bëggoon a laaj première question bi nag pour ñooñ tey ñi nga xamante ni yàgg nañu suivre ñu xam kan mooy président Mamadou Diop Decroix est-ce que mun nga ñu tënkal tuuti ci sa jaar-jaar euh, bi nga xamante ni xam naa buñ toogoon di ko waxtaanee pendant une heure de temps sax du jeex mais nga tënkal ñu sa jaar-jaar euh, wax ñu ci tuuti yi nga xamante ni auditeurs yi euh, dinañ mën a xam kan mooy ki ñu dalal tey. jërëjëf. Mm-hmm. waaw ni ko waxee laaj bi man na yaatu mais man nañ ko tënk mel na ni hmm, bu ma koy misaal yéen a ngi euh, seet si koo xam ne euh, lii ngeen di yëngu muy technologie ak yu mel noonu pexey pexe pexey jokkoo yu bees yi da ngeen fee fekk koo xam ne maanaam ci ñi ko door ci Sénégal la bokk bi ma amee euh, vingt quatre ans def naa yow peut-être weesu nga vingt quatre. waaw maa ngi ci trente six de. voilà <laughs> waaw bi hmm. commencé nekk hmm, analyste programmeur euh, di liggéey ci informatique. en en fait ci sama formation universitaire. Hmm. philosophie la. philosophie nga jàng. waaw mais euh, euh, gis nga nit ak jaar-jaaram rek. parce que dama nekk université di jàng nekk étudiant bu macha allah daal euh, Senghor euh, dàq ñu université. Ah waaw boobu dañ ko sonaloon. Hmm, ci université. waaw ok alors mu dàq ñu les leaders tous les leaders étudiants mu signé décret dàq leen. alors euh, boobu nag université de Dakar université la boo xam ne. Euh, maanaam réew yi nga xam ne euh, ay colonie française la ñu woon ñëpp seeni i étudiants daanaka fi lañ nekkoon. ci Dakar fii nii. Dakar depuis le Tchad depuis le Cameroun Niger euh, Bénin Togo Burkina Mali Guinée Mauritanie ñëpp fi lañ doon jàngee donc biñ defee grève bi mu signé décret dàq tous les leaders étudiants. Euh, ñi nga xam ne ay euh, du ñu ay sénégalais. Mhm. mu gaare avion dugal leen ci. ñi ñibbi yóbbu ñi ñibbi. alors ñun nag bi mu ñu dàqee euh, mois de mars mille neuf cent soixante biñ ci tegee ay une semaine dix jours gendarmerie wër ñu jàpp ñu ñu indi ñu Dakar ñu nekkul woon Dakar man maa ngi woon Diourbel ñu jàpp ma. donc indi fii dugal ñu avion militaire yóbbu ñu Tambacounda ñu ñu def fukki weer ak juróom-ñett ci armée bi alors fukki weer yi ak juróom-ñett présentation jaar-jaar mhm. ma <laughs> xamal la ne euh, teg nañ ñu ci prison civile ah ñetti weer ak genn wàll alors teg ñu ci biir arme bi parce que dafa am prison militaire militaire nekkee armée mhm. boo déconné wala. Mm. waaw waaw si ñu jàpp ne da ngaa def. da ngaa déconné. voilà <laughs> <laughs> eh, mm. ñu euh, quarante cinq jours. ci prison euh, militaire. militaire prison mm-hmm. militaire bi. boo mm-hmm. euh, xam nga bon su bëccëgee da ngay am ne bëccëg la. Mm-hmm. soleil bi yooyu. waaw voilà. mais condition yi dafa metti woon ba soxlawul ma di ci dellu si xam naa ne daal lu mu li mu metti yëpp. faale wu ñu woon mettit wi alors gars yi nag loolu jaaxal leen ñu dem wuti ay contreplaqué. ay contreplaqué. voilà daaj ko ci fenêtre yeeg. porte ah. fu soleil mën a jaar rek. pour dootu leen xam guddeeg bëccëg daal voilà bu bu bëccëgee day guddi. Oh. guddee day guddi. loolu métti na ça c'est très dur <laughs> ça très dur. alors mm. donc euh, loolu doy leen nag ñu jël ñu fa nag. Mm. yóbbu ñu euh, frontière. Mm. boobu boobu. frontière u Sénégal Guinée Bissau parce que boobu portugais yi ñoom euh, xam nga français yi ñoom dañu ne dañuy joxe indépendance fekk joxe wuñ dara anglais dañ joxe indépendance dem seen yoon dem seen yoon ñii moom toog portugais yi dañ ne ñoom duñ joxe mhm. gars yi xeex ak ñoom fetal <laughs> dàq leen ok tubaab yi France mhm. ñoom na ci digg du duñu yàpp duñu jën <laughs> wax ne dañuy <laughs> uh-huh. joxe fekk joxewuñu moom la ñuy wax système néocolonial. Mm-hmm. ñu bare ngi dégg système xamuñ ko waaw si si loolu mooy système néocolonial général de Gaulle moo ko fi instauré mm. su temps bi mayoon ma expliqué mais donc mm-hmm. euh, euh, bi ñu demee ci frontière ba pour euh, Amilcar Cabral ak waa PAIGC di xeex arme à la main pour dàq portugais yi donc euh, ñun ñu dem fa pour sécuriser la frontière ça c'était Senghor comme ñun soldat lañu. waaw ngeen sécuriser frontière yi. soldat voilà Senghor joxe ordre bon nañu sécuriser frontière looloo ñu fa yóbbu woon donc mais léeg-léeg day am affrontement alors mu am affrontement ci la ñu reyee Al Ousseynou Cissé. oh euh, te la bokkoon. waaw étudiant deuxième année sciences économiques. Oh. la nekkoon ñu rey ko fa. donc foofu jaar nañ fa. ah jaar jaar boobu moom. je pense que bu ma ko c'était le vendredi 26 mai 1972. oh ndeysaan. bon man mii. Mhm. tàggee nañu ma ci rajo bi. ah parce que dañu ne du Diop bokk ah. na ci ñi faatu. Oh. comme nag booba man. Euh, mhm. dirigeant laa woon bu ñëpp xam. aussi si si si exactement. alors euh, gars yi def ay grève def ay marche ci dëkk bi. même à l'étranger ay Canada France. Euh, ci 1972. waaw ah fu am étudiant sénégalais rek. Mhm, marche gars yi def nañ fa ay manifestations. parce ñu ne Mamadou Diop Decroix gars yi dañ ko rey frontière. Oh. Mhm. alors loolu. moo moo interrompre sama étude sama étude de philosophie à l'université parce que Senghor bi mu ñu dàqee bi ñu génnee armée Senghor daf ne exclu de l'université et de toute autre école supérieure du Sénégal maanaam. mënu leen jàngee mënatoo jàng daal mënatoo jàng. mënatoo jàng Sénégal daal mm. alors donc euh, ñi mënoon a dem dem nañu à l'étranger dem jàngi bon mais man. euh, j'avais des amis à IBM. IBM moo xam nga ko si IBM waaw société bu mag loolu defar ay ordinateur mhm. mhm. alors euh, donc ñoom la ñu la la collaborel ba ñu dugal ma ci métier bi donc ma nekk finalement euh, analyste programmeur ONCAD mhm. ne ONCAD euh, mooy société boo xam ne euh, ci boobu jamono cent cinquante milliards de chiffre d'affaires la doon def non dévalué. Mhm. ci jamono jooju. Ah, jamono parce que euh, en quatre vingt quatorze la ñu dévalué CFA cinquante pour cent xaw cent pour cent euh, bu doon tey daal dinaa wax ne euh, entreprise la boo xam ne am na chiffre d'affaires mille milliards. mille milliards xaalis la. waa donc foofu la ñu nekkoon ñun. Euh, en tant qu'informaticien euh, mais j'avoue que man bi may ñëw xamul ma ne sax déjà informaticien woon nga. voilà kon nag xamuma mbokk lañ seet. <laughs> ma bi ma jógee euh, ONCAD. parce que après mhm. dañ dissoudre. waaw si si. dem ministère des finances. ma nekkoon naa fa direction du traitement automatique de l'information DTAI. ba ah léegi ah ba léegi ça existe la DTAI. si si si si. voilà. Euh, ab en quatre-vingt-dix def. Mhm. Euh, départ volontaire. ah quatre-vingt-dix. voilà jógee jógee euh, fonction publique. j'étais un agent non fonctionnaire de l'État ma démissionné après nag nekk à mon propre compte. ah nekk def auto entrepreneuriat. voilà c'est ah nekk ah un expert en ah génie logiciel. Ah alors ça, pendant ba quatre-vingt-dix-huit ans huit ans alors évidemment l'intérêt mooy euh, <laughs> marché bu ma conclure rek mm-hmm. dinaa ci fayu loo xam ne en tant que agent de l'État dina dinaa liggéey douze mois at at at mi yëpp te duma ko fay. te doo ko mën a fay waaw <laughs> c'est vrai que loolu moo tax ñu bëri léegi sax di entreprendre quoi parce que c'est moo gën a. moo solo waaw si si. Mm-hmm. alors def naa ko huit ans j'ai travaillé ak waa PNUD. ak waa environnement surtout ay projet euh, ak pays ba ak yu mel noonu 98 nag la nekk euh, député. exactement macha allah. alors ci ngay door a dugg ci politique bi après. non ah non biñ may dàq. waaw parce que biñ lay jëlee étudiant. biñ déjà ah, ci kii bi commencé woon naa <laughs> ci politique bi. Mm-hmm. mais bi mu génnee armée. 72. Mm-hmm. Euh, moo tax d'ailleurs bind naa ma ne répression. Euh, du régler problème ah, parce que euh, gars yi nit ñi boo leen réprimer da nga leen di gën a ancré ci seen i conviction maanaam maanaam bu dee da nit ki dafa gëm dara nga di ko ci bunduxutaal euh, du tax mu yokki day gën a day gën a sax ci li mu gëm si si donc biñ jógee armée 72 li njëkk a def mooy xool naka la ñuy organiser woo pour continuer xeex bi donc bi ñu nekkee armée am na ñu desoon ñoom ñoo xam ne jotuñu leen woon a jàpp. Mm. ci ñu ngi nekkoon en liberté. voilà ñu doon parce que dañu doon wër am na ñoo xam dañoo rëcc. ah waaw. <laughs> gars yi gars yi. Mm. am na ñu jot a rëcc quoi. leen mën a mën a jàpp. alors euh, donc ñoo ñooñu ñoom ñu bi ñu nekkee armée ñoom ñi ngi organiser wu. Mm. di di préparer waale voilà mhm. donc bi ñu génnee armée fekk ñoom it ñu ne fi ñu daal di jokkaloo mai 73 ñu taxawal ànd jëf xare bi. boobu nag 73. 73 boobu benn parti fi du ñaar du ñett du 400 comme na benn rajo fi am du ñaar du ñett du fanweer du 100 comme léegi benn télé fi du ñaar du ñett du 100 comme léegi. ak benn parti politique muy UPS mu devenu tey mooy PS bi ñoom def nañ fi quarante ans ci pouvoir bi. Ah, si si taarix la nag. <laughs> alors donc. Mhm. Euh, ñun ñooñu lañ doon euh, xeexal euh, taxawal ànd jëf xare bi benn journal amul ñun ñoo doon. defar journal clandestin. ah da ngeen doon bindal seen bopp hmm. lu ñu rek ci gars yi. Ah, ministère bi sàcc nañ fa nangam ministère bële yàq nañ fa nangam tel leader de l' état yàq na lii et cetera di feeñal daal. li ñuy wax révélation alors journal bi nag euh, hmm. enfin bu ma leen ko <laughs> compliqué. Eh, feuilles yi la ñuy jël rek ay feuilles. ok tapé. bind ko waaw waaw boo bindee. Mm. daal di euh, renéotypé. Mm. Euh, c'est pas comme maintenant. c'est pas comme saisie imprimée léegi. Mm, da ngay am na ay machines fi ne. Ah, da ngay renéotypé. Mm-hmm. après nga euh, agrafé. Ah, metti woon na léegi bu mm-hmm. paree. Mm-hmm. nga ay agent de liaison. ñoo xam ne. kii moom da koy jox mu yóbbu ndar. kii mhm. yóbbu Tamba kii yóbbu kii. mais yéen da ngeen amoon organisation bu bu bu bu baax sax ko alors ñu yóbbu fépp ci Sénégal. Dakar dañuy fu ñu déposé ci bureau yi ci entreprise ci chantier yi ak buntu kër yi alors après bu ñu nee nag comme tey la ñu ne bon lundi matin bëgg nañ journal bi feeñ donc dimanche ci guddi. la gars yi di wër fu nekk. ña place yi waaw ña ne Ziguinchor ña ne Tamba ña maatam ñane ña ne Dak ku nekk. da ngay fanaane guddi gi di distribuer. bu bët sete a ah, police day def rapport police Kédougou ne eh, gis nañ ko. Ziguinchor ne gis nañ ko. maatam ne gis nañ ko. ci moo xam ne amut journal. amul journal ah, information bi pour ñu passé ko métti woon na. affaire bu garaaw. donc euh, Senghor vraiment avait peur gouvernement bi xamuñu naka la naka la naka la am na sama benn sama rak xaritam quoi euh, ñëw yenn si sama kër di ma nettali xare bi ni mu koy defaree. <laughs> parce que ah bon yu mel noonu ay légende lu nekk ngay dégg. lu nekk ngay dégg. alors mu ñëw yenn sama kër lu nekk nag mu wax ma ko. alors ma naan ko ah bon eh, kon de gars yooyu moom nangam naa ñu teg ci ñaari weer ñett gars yi jàpp ma ci affaire xare bi. Oh, ah, mu ñëw seet si ma kaso ba. mu ñëw seet si la foofu. non mais mais grand yow man maa ngi <laughs> nettali rek. teg ci affaire xare bokk. <laughs> ndeysaan <laughs> alors. Euh, mmh. évidemment mm. jàpp nit ñi torturer mm. leen euh, ah oui oui c'était difficile ah oui tëj ñu kaso ñi deux ans ñi un an ñi huit mois ah bon donc loolu ay jaar-jaar la cest à pour wax la ne la gàttal ko wax la ne euh, ñun bu ñuy politique bi ñuy door poli Ibrahima mm-hmm. du woon nekk ministre wala nekk député wala nekk am milliardaire wala non parce que da nga ciy ñàkk bakkan exactement al Ousseyn nekk mun na la ci dañ ko rey ndeysaan sëñ Jaba ah. Mandiaak wax naa la ko mm-hmm. Omar Diop Blondin dañ dañ dañ ko rey ci ci kaso Gorée mai 1973 moom itam al Ousseyni mai 1972 lañ ko rey ak yeneen ak yeneen donc euh, Mamadou Diop su ne dafa bëgg a nekk candidat pour diriger Sénégal ku ne dina xam ne kii nekkul di bëgg a diriger pour jël alalu Sénégal parce que li mu daj ci ci ci ci ci ci àddina ci opposition booba ñu bare dañuy jàpp ne ñun ay dof lañu surtout que en ah. même temps ay cadre la ñu woon ngeen moom ba pare waroon mun dem def leneen. oui mais ngeen. Euh, ah sacrifier seen seen vie sacrifier seen lépp seen temps et tout voilà pour euh, pour Sénégal ci jamono yooyu surtout. ah, ah. alors solo. donc ça c'est important mm-hmm. euh, ci jaar-jaar bi maintenant euh, en quatre-vingt Senghor démissionné sengoor ñun ñoo tax mu dé am gars ba tey duñ leen wax lu tax Senghor démissionné ah oui Senghor daal moom vraiment ku baax la dafa dem ba kii après mu démissionné nangam nangam bon mënoon na tes ah bon nekk continuer dictateur di réprimer et tout mais daf ne daal moom euh, il ne comprend plus la jeunesse noonu la koy waxee et la jeunesse ne me comprend pas <laughs> noonu la leen waxee donc mu démissionné mm-hmm. ah, après bi Abdou Diouf ñëwee nag ñu ubbi démocratie bi en tout cas multipartisme ñu ubbi ko donc ci la ñu ñun légaliser sunu parti su fekkee boobu seen parti mu ngi tuddoon ànd. ànd jëf xare bi ànd jëf xare bi waaw. waaw parce que turu turu journal bi ñu doon. distribué tuddoon xare bi. moo tax ñu ne ànd jëf. xare bi ok. Mm. léegi nag bi Abdou Diouf ubbee ñu tudd ànd jëf MRDN. mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. en 91 ñu def unification ak yeneen groupe politique. ñu tudd ànd jëf PADS. parti africain man que ànd jëf ci laa. moom laa door a xam ko moom laa njëkk xam mu nekk hmm. parti africain. pour hmm. la démocratie et le social. donc euh, loolu mooy euh, jaar-jaar yi nga gis kon ne euh, vraiment ñi dañu gëm dafa am lu ñu gëm dañ koy doxal du du pour nekk leneen ay yu mel noonu. deuxièmement en quatre en deux mille ñu gagné Abdou Diouf. dañu def coalition bu yaatu président Wade nekk suñ candidat ñu gagné ma nekk ministre euh, de la culture et de la communication. ah donc ma dellu waat ci métier bi ci métier bi exactement. parce que bi ma nekkee député dama taxawal le réseau parlementaire des technologies de l'information et de la communication. ah bon. ah oui oui ci ci jamono yooyu. ci jamono yooyu. quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf OK. Il y avait 140 députés à l'Assemblée, les 120 mm -hmm. membre membres téeméer ak ñaar fukk ci téeméer ak juróom ñeen euh, ci téeméer ak ñeen fukk téeméer ak ñaar fukk bokkoon nañu ci sama réseau parlementaire bu bu yëngu ci mbirum pexe pexe yi jokko yu bees alors euh, affaire bi vraiment yëngu bu baax euh, waa USAID jàppale ma ci ah oui ñu def organiser fi ay séminaire yu yaato yaatu président assemblée bi ñëw alors que man opposition radicale laa woon. laa si si ñëw nañu. Mhm. ak yeneen i ministre Abdou Diouf ak yooyu. Mhm. Euh, ma fexe ba ñu am espace par espace. Euh, mhm. numérique ah, espace numérique. assemblée nationale. macha allah macha allah donc yow innové innovation dëgg nga fa. ah mhm. yi di ñëw ñoo xam ne ñoom dañ doon ragala sax <laughs> ordinateur. waa ñu ngi door a gis ordinateur. ak euh, ñëw matériel matériel yooyu. Mhm. mu ngoog di di utiliser. donc bi ma nekkee ministre. de mhm. de de la communication. donc nga xam ne maa yor télécom. Euh, ma continuer liggéey boobu. vraiment euh, pour développer les les TIC. def def naa ci lu bare bare bare. Euh, mën naa wax daal ne kon. Mhm. Euh, bokk naa ci les pionniers. exactement jëkk yëkkati. Mhm. Euh, pexe yi jokkoo yu bees yi xarala yi. Mhm. ci ci Sénégal. macha allah man man j'avoue que. bi may ñëw fii information yëpp aw ma ko c'est vrai que def naa ay recherche tuuti ci yow mais euh, xamul ma ne déjà yaa ngi woon ci euh, déjà bu yàgg ci jamono joj ci affaire xarala yu bees yi je pense que tey euh, li ñu expliquer nii man daf ma daf ma daf ma fàttali lu bari sax déjà surtout ak jamono ji toll nii su ma gisee contexte bi am léegi allez avec étudiants yi ak yu demee noonu damay gis ne tey jii nii yéen seen jamono jàng métti woon na mais terewul tey yegg ngeen fi ngeen yegg. donc tey jii nii tey man gis naa ne aussi ba léegi euh, jàng mi xaw na am ay jafe mais espoir dina am am na parce que suñ dégloo exemple yu mel nii dañuy xam ne tey euh, yéen ba mu méttee dëgg dëgg dëgg moo gën a jamono ji tey je ah pense tu vois te terewul am na niveau bu ngeen yegg tey ci nii donc kon tey ñun aussi jeunesse bi buñ perdre yaakaar te bu ñuy déglu genre de daf ñuy gën a motiver ñu mun a ñun aussi xam ne ñun buñ ci jàppee dëgg dina baax quoi alors ci noonu sax lay jaaree dem ci beneen question bi parce que euh, dafa mel ni sax da maa yombal affaire bi parce que danga nga laal ci mbirum jàng ak université et tey bu ñuy wax xarala yu bees yi je pense que jàng ko tamit am na solo. Mm-hmm. c'est vrai que am na ñu bari ñoo xamante ni ay autodidacte lañ maanaam dañuy jàngal seen bopp tu mais tey yow lan nga xalaat tey ci éducation technologique bi nga xamante ni mu ngi am euh, am na Sénégal wala amu ko wala yow lan nga ci xalaat comme euh, solution parce que tey. li tax tey ñun ñuy def euh, euh, podcast bi di ko ci wolof sax. Mhm. c'est pour permettre nit ñi nga xamante ni demuñ école jànguñ ñu mun a xam ne ñoom tamit ci mbir mbiri lañ bokk. comme ni ma koy joxee exemple chaque fois tey boo demoon tey ci àll ba fële fële ci biir Saalum fi nga xam ne foofu laa jóge boo demoon foofu tey paa yi fa nekk sax nouvelle technologie war na leen intéressé. Mhm. parce que am na ay xarala yoo xamante ni mun na leen permettre tey ñuy arroser seen tool yi te duñ jógee seen kër. donc ñun tey bokk na ci li tax tey ñuy def podcast bi pour permettre indi information bi si ñoom ñu xam ne existé na nga xamante ni bu ko ki koy def bi ñëwee di ko wax du nekk lu bees si ñoom dinañ xam ne li existé na alors tey yow nag nga xalaatee éducation euh, à tous les niveaux nag tey nag lañ moo def pour éduquer suñu euh, population yi ci xarala ci bees yi. waaw Ibrahima loolu laaj la bu am solo. Mm-hmm. Euh, maa ngi lay wax ne la. mille bi ma nekkee ministre en charge des TIC. Mm-hmm. man maa yoroon aussi donc télécom. exact. Euh, maa njëkk a rapport. Mhm. conseil des ministres. Mhm. sur l'entrée du Sénégal. Mhm. dans la société de l'information. macha allah deux macha allah xam nga malheureusement. Afrique. amul suivi. exactement c'est mooy problème bi. da ngay commencer tabax ba mu jóg. kenn ñëw li muy njëkk a def mooy toj. toj bëgg tabaxaat wala bëgg a tabaxaat que la mhm. ñëw toj. Mhm. bu ko defee nuy def nii. Mhm. te état continuité la war a doon. quinze projets la présenté keroog conseil des ministres. ma nañ retrouver communiqué conseil des ministres bi en l'an deux mille. mu ñu ne du Diop a présenté une communication sur l'entrée du Sénégal dans la société de l'information euh, que le conseil des ministres président la République l'a félicité pour la ne la yii ngay wax. y vingt trois ans oh. man laa ko mhm. xalaatoon bu bind ci ba def ci rapport conseil des ministres maanaam gisoon naa ne war nañu mën a accélérer l'alphabétisation universelle en utilisant les technologies de l'information et de la communication toujours damay wax gars naan leen euh, euh, euh, dëkku kaw boo dem garab ga ca pénc ba dafa war a nekk salle de classe parce que dañu tardé ci wàllu xam-xam donc mën nañu utiliser pénc moo dem ñu ne waxtu sàngam na ñëpp ñëw ñi ko man ñu daje fa ñu teg benn tableau lañ koy tuddee mu nga gars yi di jàng di ji ki leen di jàngal mu ngi Sénégal wala ma nga Amérique wala ma nga mm-hmm. sans problème. exactement wala déet à distance. Mhm. wala déet. exactement. voilà na nekk. donc euh, loolu. tëraloon naa ko. comme comme projet a à l'époque. deuxièmement gisoon naa ne administration bi xoola administration Sénégal ni mu diise dafa diis. Euh, bon léegi xaw naa tane mais à l'époque da ngay jógee Kanel dem ba Ndar pour wuti kayitu juddu wala pour wuti certificat de je sais pas quoi. ba léegi si sax. ah, ah non ba mu ngi am. ba léegi mu ngi am ba léegi mu donc man jàpp naa ne su ma doon président de la république. damay facilité yooyu ba nga xam ne. wa illaa nga mën koo am sa kër wala boo génnee am na benn euh, espace espace bu nekk ci quartier bi. da ngay dem amul sax rang amul dara da ngay ñëw di tàppe sa affaire li nga soxla bu dee da nga war a joxe euh, cent franc wala deux cent nga nga dugal affaire bi di jox la sa kayit nga dem sa yoon. bon à l'époque aussi amoon naa beneen projet moo doon euh, le vol de bétail xam nga Sénégal li ñu fi sàcc ci jur. Mm-hmm. dafa bëri dafa bëri dafa bëri mm-hmm. dafa bëri. sur trop sax. alors mm-hmm. te te te gars bon am na yeneen i affaire ci biir mais war nañu mën a am système boo xam ne ak de contrôle boo xam ne saa waay boo les les bétail bi dañu koy euh, mm-hmm. nu koy ko waxee dañ leen di. Mm-hmm. dañ leen di euh, recenser dañ leen recenser euh, codifier leen. exactement nga xam ne mm-hmm. non doo ko mën a doo mën a sàcc. doo mën a sàcc boo boo ko sàccee dañ la jàpp. borom sax dina xam ca waxtu bu nekk foofu la bétail bi nekk. mu ngoog waaw. alors donc il y a vingt trois ans laa bind loolu bon e-commerce. Mhm. e-commerce. voilà. Mhm. jënd ak jaay bi jënd jaay. Mhm. ci pexe yi xarala yu bees yi. Ehm, e-santé. e-santé. et cetera et cetera. Ehm, chef d'état yi. bon léegi gars ak. Euh, euh, euh, ay visioconférence. Ah, yooyu ay Teams ay mais il y a vingt ans. dama ne président Wade non. te sur surtout en mille vingt deux moo doon le président de la CEDEAO ma ne ko mais président franchement tukki yu bëri mais nañu trouver un système un teg dans projet ci taabalam ma ne ko lii buñ ko réglé yow da ngay kii tax tuy bés bouton ngeen yéen ñëpp ngeen connecté wu dafay def économie de carburant économie de ah, temps tout tout ay milliards la ay milliards la ay milliards la mm-hmm. quinze chefs d'état qui se déplacent les chambres d'hôtel leurs accompagnants la restauration le ceci le cela bon donc euh, vingt ans xalaatoon na projet yu noonu euh, ma fàttali la itam ne la euh, loolu mooy ci sama programme yi ah. ok mooy ci si boo nekkee président la république. Mm-hmm, mm-hmm. ah non yéen du ngeen <laughs> parce que parce que. Euh, maa ngi à l'époque euh, taxawaloon euh, président Wade le fonds de solidarité numérique. ah oui dinaa koy dégg. di nga dégg. Mm-hmm. ñun la. Mm-hmm. parce que dañu gisoon ne euh, le gap maanaam li ñu teqalee li jox suñ diggante ak réew yi am doole war nañ koo dabu ci jariñoo pexe yi le xarale yu bees war nañ ci mën a dabu lu baree baree baree baree bare euh, mais ñu gis tam ne bu fekkee ne niñ ci war a taxawee des na ah li ñuy rawee dina. dina day day day ëpp. day bëri trop sax. Mhm. donc euh, booba ku mel ni Bill Clinton aux États-Unis waaw taxawal na la lu mu lu moom lu mu tuddee woon dot la dot force. la dot force. digital opportunity task force. nee na pour mën a dimbali eh, réew yi. waaw ñun jël ko au mot. on a ah bon eh, taxawal nga dot force. <laughs> ñun dañuy taxawal. Mm-hmm. Eh, le fonds de solidarité. Mm-hmm. numérique numérique alors mu indi affaire bu grave ah, parce que day nekk lu bees lay doon et c'est innovant parce que dañuy waaw ñu dem Genève. sommet mondial de la société de l'information alors Sénégal ñëw nekk le porte-drapeau de l'Afrique sur le fond de solidarité numérique ah oui xeex bu metti les occidentaux si jamono la woon yan année la woon 2003 2003 ok 2002 2003 euh, euh, occidentaux yi Amérique Canada Japon euh, ak Union européenne ne non non non ñoom d'accord ñu ah oui fexe ba rassembler toute l'Afrique Amérique latine ak Asie ak monde arabe ah ñu ànd xeex ko xeex bu metti euh, affaire boobu dafa amoon succès ba ci sommet bi avant muy muy jeex le maire de Genève daal di génne quatre cent millions de CFA ñu euh, cotisé na moom ci fonds de solidarité ok macha allah génne quatre cent millions mm-hmm. euh, appuyé Sénégal pour les centres multimédia communautaire à l'époque waaw ma ma taxawal ci vingt parce que centre bu ne c'était à peu près vingt ma ma taxawal ci vingt centres. Mm-hmm. xam day am rajo ba pare am ay. Mm-hmm. am ay voilà voilà voilà. Mm-hmm. Euh, le fonds de solidarité numérique. donc daal mi ngi gudd. ma yamale ko foofu pour wan la ne la euh, et aujourd'hui ak. Euh, Euh, nu mu internet bi fi mu toll waaw réseaux sociaux yi mm. intelligence artificielle bi ci bëgg ñëw sax mm-hmm. euh, nga xam ne li nu war a mën a lijjanti moo tax sànq nga ne euh, nga xam ne dañoo dañoo soppey mm-hmm. xarala yu bees yi exactement yu bees yi moom ñëpp a ko war a sopp parce que dafa transversal exactement si si sànq nee naa la mi mm. ngi ci santé mi ngi ci école mi ngi ci fépp mm-hmm. mi ngi ci mbay mi. Mhm. tudd nga ko léegi. exactement. mi ngi ci lépp alors. Euh, jàpp naa ne ma bu ma nekkoon président de la république. Hmm, ci at yu néew. Sénégal dina bokk ci réew yi gën a sore. ci mhm. loolu parce que d' dama ko gëm. da ko gëm ci si. et puis dama ko dund dama xam njëriñam. exactement am na ñoo xam ne. dañuy topp mbambax mi exactement vision bi ci am sax euh, c'est pas très clair comme ni nga ko mais yow comme acteur nga woon déjà ci bi nga nekkoon déjà di nga xam li mu soxla dëgg xam li mu soxla xam hmm. liñ ci mën a lijjanti mm-hmm. exactement mm-hmm. mais et je pense que sax fi nga wax noonu xam liñ ci soxla ak euh, liñ ci mën a lijjanti foofu sax lay demee ci beneen question bi euh, bi moo posé nii parce que tey comme li ñu wax ne technologie chaque fois day avancer tey li ñu doon def y a de cela ay dix ans léegi day gën a évoluer tey jii ba dem nañ sax ba nga xamante ni léegi métier wu journalisme ak ñiy bind tey li ah ah ñuy wax ah, intelligence artificielle générative da ngay ñëw rek laaj ko ne ko mu bëgg def benn article mu bindal la ko wala tey nga mun a am ay drone yoo xamante ni dañuy mun a di xool jaww ji ndax climat bi nu mel ndax dina taw demee noonu bëri na ay yoo xamante ni tey li ñuy wax intelligence artificielle mun na ko def Mhm. alors li ñuy wax aussi ay robotique mën na ko def mooy fexe tey ba parce que dama koy faral di wax ma ne informatique ak xarala yu bees yi ay jumtukaay la mais li ko tax a jëg mooy noflaay aadama. dëgg la loolu yàgg gëm ko parce que buñ ne digitalisation buñ ne euh, automatisé c'est-à-dire dañuy fexe ba li nit ki doon def di ci sonn ñu jéem a fexe ba nikki ki dootu sonn mën a dem lijjanti yeneen mbir alors tey ci xarala yu mag-mag yooyu noonu lu ci mel ni intelligence artificielle lu ci mel ni ay robotique tey nag nga gisee xarala yooyu parce que gis ni li muy def ci àdduna bi lu ci mel ni Elon Musk ak oto yi dawal seen bopp ci vois intelligence artificielle bi ak li muy def yëpp tey nag nga gisee position Sénégal tey par rapport ak xarala yu mag yooyu est-ce que ñun pare nañ tey pour mën a intégrer exactement euh, xarala yooyu ci suñ dëkk yi lu tax ma laajte loolu mooy dafa war a ànd ak ay mbir yu bëri lu ci mel ni droit da ci laal parce que tey boo dëgalee ci dëkk bi benn oto boo xamante ni day dawal boppam bés bu oto bi amee problème est-ce que prévoir nañ ay ay ay loi wala ak ay yoo xamante ni mooy ànd ak moom pour ñu mu est-ce que tey Sénégal pare na pour euh, ci sa xalaat ci pour euh, accueillir euh, technologie yu mag yooyu noonu. laaj la bu am solo Ibrahima foofu damay def benn mm. commentaire mm. xam nga ñun mm. dafa am lu ñu yàq. Mm-hmm. tubaab yi. Mm. noonu laa koy waxee rek. exactement pour ñu xam quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que du affaire der. exactement si si. Euh, mais affaire euh, adab affaire culture affaire lu ñu tàmm. ñoom boo leen lii dafa jafe ak ñun buñ ñu nee lii dafa jafe taxawaay bi du benn mais boo leen ne dafa jafe dañuy dem wuti lu ñu ko lijjantee ñun boo ñu nee buñ ñu nee lii dafa jafe. dan ko fay teg. dem toog seeti leneen dañ ah, naan dafa ah, jafe. si si donc. Hmm. xam boo euh, ndax tey man nanu lan la affaire yi no man dama la naan euh, problème bu am solution am na yàlla noonu la mooñee àddina problème bu amul solution ça n'existe pas xanaa la mort te la mort le Allah te dit da ngay judduwaat da ngay dundaat. kon lépp am na solution. mais c'est mm-hmm. euh, euh, moo tax ma ma ne euh, d'abord d'abord Sénégal école ci boppam dañ koy fentaat. Mm-hmm. dañuy réinventer. école école. parce que école bi. xam nga sànq dama naan système ñu bari dañu koy tudd te xamuñu lu mu demee tubaab bi dafa teg benn affaire am ba tey mooy dox mm-hmm. euh, réinventé wuñu suñu école xoolal xoolal école bi ak ah, jafe-jafe yi depuis ay yi ba soixante trois ans même chose rek même chose réinventé wuñu su suñu agriculture mm-hmm. ah Sénégal gerte mm-hmm. Mali. Mhm. Burkina wëtteen. Mhm, mhm, euh, Guinée. banaan Côte d'Ivoire café cacao. Indochine ceeb noonu la ko tubaab bi bëggee woon. noonu lañ ko tasaaree répartir ko. waaye léegi nag ba ñoom ba ñu demee. waroon nañoo fentaat suñu agriculture. defuñu ko ba fii mu ne nii ñu ngi importer lu ëpp téeméeri milliards ci sunu xaalis ci ceeb ñoo ngi importer juróom benn téeméeri milliards ci luy dem ci biir te waroon koo mën a bay kon xam nga ne euh, maanaam école bi dañu koy fentaat mm-hmm. faw tëggaat ko defaraat tëggaat ko mm-hmm. alors euh, boo déggee ma tudd fentaat ak tëggaat bi nga wax mm-hmm. dafa am ñoo xam ne yoom dañ naan dañuy réformer réformer mooy jag-jagal man ah. jag-jagaluma de. waaw <laughs> ah, je pense que explication boobu am na solo réforme jag-jagal fentaat foog ñu xam ko waaw si si. man mm-hmm. jag-jagaluma. Mm-hmm. li fi ne. Mm-hmm. dañ koy toxal. parce que boo jaaree ci yoon juróom-benn fukki at ak ñett jëm ci barab te yëgoo dangay ngay wàcc yoon woowu jaar ci weneen yoon. am déet. mooy yoon donc moo tax. Euh, gone yi. bu ñuy basaar mais attends. boo demee ci kër yi xale yi liir yi sax ñu ngi sa téléphone yi lay di kat kat <laughs> kat ñëpp ak yow téléphone waaye kon nag kay ñooñu mm-hmm. yaa xayti boo leen tàggatee mm-hmm. mais day gaaw dañuy gaaw a mokkal affaire bi day gaaw mm-hmm. day am njariñ te et ñu yar leen ci nuñ koy jariñoo exactement parce que ay ngaaña a ngi ci te boo ko seetloo ba tey dañuy ñaxtu rek ci ngaañ yi mais lijjantee guñu nu nuy régler mm-hmm. affaire ngaañ yi mm-hmm. Mm-hmm. or bu fekkoon ne sóoraale nañu loolu ci ci ci ci ci kër yi déjà ñu parents yi waajur yi xam ni ñu war a tàggate gone yi ci di jëriñoo li ci am njëriñ te di dàq li ci li ci baaxut li ci baaxut di ñu aussi sóoraale la bataille des contenus exactement parce que tey àddina bi loolu la. Mhm. contenu moo fi. Oh, xeex bu metti ci contenu mhm. parce que. ku la ëpp contenu moo la ci ëpp. Euh, bénéfice fan yi passé maa ngi dégg France ak seen bataille yi ñu def ak Spotify ak yeneen gafam yi voilà xeex bu metti la ci contenu. ay yëf mhm. te ñun. Oh, seetoo ne boo bu ñuy wax ñoom. doo dégg ñu tudd Afrique. Ah, Afrique bokkut. bokkul bu doon ne. ab carte la. Mhm. bu ñu teg ci mur bi. Mhm. di wane ji fi ne. Mhm. doo Afrique ci carte bi. non du marché sax des fois. kon nag kon nag saa waay ñun suñu affaire dafa garaaw de man foofu en tant que quand même candidat leader politique bu am vision man foofu lay waxee. man su ma dafa xóot. Mhm. c'est-à-dire ci reen bi. ci reen bi je pense que sax problème bu amee boo koy raaraayal comme li ngay wax rek jag-jagal bi du baax mi foog nga def ko ci defar ko ci reen bi. ah loolu mooy régler problème bi ah, définitivement quoi. xoolal mhm. boo xoolee Sénégal toujours gars yi plateau télé yi. Mhm. ñaare ci xob yi la ñuy wax xobi garab yi. <laughs> ci car euh. caraati garab gi. <laughs> Euh, voilà ci mm-hmm. car yi. Euh, non man ci reen bi la. <laughs> ci reen bi ngay dem quoi si si si si. voilà mooy éducation bi non mais je pense que loolu am na solo trop parce que comme ni nga waxee léegi da nga laal point bu am solo mu nekk parents yi. que tey bu fekkee da nga nekk parent sa doom di am lu muy jëfandikoo tu vois muy internet bi xarala it xamoo ci dara doo ko mun a accompagne ci éducation te je pense que éducation du école ba kese da ngay jógee ci école bi dem ci ci kër ga te moom laa waxtaan ci benn plateau bu doon def euh, barñi ma ne leen il faut que je pense que ñuy def ay waxtaan ak parents yi parce que doo dem école ñu jàngale lii nga dem ci kër ga ñu ne la noono cest à boobaa day am ci xale ci xale day am benn mismatch ci boppam bi ba du xam sax fu muy dem pour repérer wu donc loolu moo tax xale yi en général dañuy rétracté wu seen ruq ñoom kenn kese duñ duñ duñ duñ am benn ku lañ jiite donc je pense que comme comme ni nga ko waxee lan xoolaat affaire bi ci ren bi am na solo bu baax a baax alors ren bi mais aussi ñi nga xamante ni tey ñu ngi nekk ci réew mi di def nekk ay jeunes di def lu ñuy wax auto entrepreneuriat tey ñoom tamit ci wàllum xarala yu bees yi tu vois ah, gars yi nag dinañ wax dama xaw a siis parce que man xarala rek lay wax mais bon ah, c'est normal parce que moom ma intéressé tu vois mais ñi nga xamante ni ñu ngi def auto entrepreneuriat ci réew mi ah, lan nga. am projet pour ñoom aussi parce que am na ci internet bi laata may def émission bi ñu ma envoyé ay questions yu bëri yoo xamante ni bëgg nañ ko xam mais boobu daf cee bokk mu nekk auto entrepreneuriat man mii yàgg naa def auto entrepreneuriat ci xarala yu bees yi mais chaque fois da ngay am problème maa ngi koy wax samay rakk à chaque fois mooy bi ma demee ba affaire yi compliqué compliqué non dama bàyyi waat demaat ci entreprise yi liggéey waaw parce que c'était très compliqué mais tey aussi ba gis nañ ne ba léegi loolu muy continuer yow lan nga am comme projet pour jàppale yi nga xamante ne yëngatu ci xarala yu bees yi comme ay entrepreneur du ci xarala yu bees yi rek lay am problème <laughs> Sénégal <laughs> <laughs> Sénégal ay defe naa réew yu bari ci Afrique bala ngay xam ne doxut nga jóg taxaw pour doxal exactement ci ngay xam ne doxut mm-hmm. parce que mm-hmm. système bi moo nangu luy dox <laughs> kon système bi lañu war a changé waat. oui oui oui nanguwul luy dox. Mm-hmm. parce que. ah dafa c'est profond. hein c'est profond c'est euh, dama am. Euh, na nekk ministre du commerce nekkoon naa ministre du commerce alors waaw mu am benn benn entrepreneur euh, kenyan d'origine indienne xam Sénégal dañu am accord ak États-Unis tudde ko AGOA Hmm. African Growth and Opportunity Act mu ñuy may lépp lu ñu mën a produire fii ci mën nañ ko jaay Amérique ci ak quantité bu mu mën ci toll sans droit de douane hmm. mais ah, depuis vingt ans mënuñu ko parce que amoo loo jaay <laughs> waaw si production yi moo amoo loo Euh, à l'époque damay waaw nañ jéem a jàppale suñu euh, ñi nga xam ñu ngi ci euh, couture suñu abi africain yi et cetera d'accord mais américain bu ñëwee ne man dix mille laa ci soxla yow cent nga mën a defar wala deux cent du sotti alors kooku ñëw ne daf fi bëgg a def usine buy transformer coton defar ay jean defar ay chemise defar daal ay yére pour jaay Amérique c' bien ah ma ne ko man loolu laay wër. <laughs> il lui fallait un terrain. ok bon gars yi dikk ko benn terrain je crois côté Thiès. bi daal waa ji di dem dikk dem dikk ba yàgg gisatuma ko. un jour ñu daje ci benn aéroport xaw ma fan ci àddina bi. ma ne ko ma yow gisatuma la. <laughs> ma waaw. dama mm. dem Ghana. Mm-hmm. ñu jox ma terrain tabax ko. defar ma ci li ma soxla indi électricité beeg assuré yëpp ne ma mu ngoog donc léegi donc installe wu naa fa hmm. euh, recruté naa trois mille employés donc dañoo yéex fii benn fii benn waay <laughs> mhm. bu nekk ci bureau mhm. daa ko demal tey ñëwal suba dina ginnaaw suba peut-être dafa soxla woon yéeme na daal non yéeme na yéeme na dañoo yéex. alors euh, donc ci def. Mhm. donc euh, Ibrahima. Mhm. Euh, li nga ne naka la ñu war a def pour c'est pas seulement ci seen domaine domaine yépp la loolu li koy régler mooy nga éliminer la corruption. Mhm. ok. éliminer le le entre guillemets laay wax parce que doo ko am cent pour cent mais vraiment nga nga nga nga la la corruption ba nga xam ne saa waay Euh, bon ko ko ku ci nekk daal war na jàpp ne bakkanam a ngi ci xottu nen dégg nga wax ji alors loolu soo ko reglee day yomb ci les entrepreneurs les start-up ñi nga xam ne vraiment dañuy euh, fexeel seen bopp euh, doo dem ci bureau ñu naa la ñëwal suba ñëwal ngoon non c'est des guichets uniques da ngay ñëw tàppe li ngay tàppe ji jël yi dem def. si si jeex. yow nga xamante ni di nga am lu la lu la déchargé wu. tu vois parce que di nga mën a concentrer sa innovation xam ne dina dina sotti. surtout parce que ñu li bëri léegi ni sax boo xoolee bëggatuñ sax di innover parce que dañuy xam ne buñ créer benn affaire du dem. dañ leen dafay dafay jafe trop. pour mu dem day jafe day mm-hmm. Mm-hmm. donc environnement boobu. Mm-hmm. xam nga souvent dañuy wax waaw environnement des affaires. non c'est l'environnement des têtes d'abord. <laughs> waay <laughs> si si si si. cest à soo soo changé wul bopp yi. ni muy doxee. te attends une loi c'est quoi un arrêté c'est quoi un décret c'est quoi c'est des textes. textes yi intelligence koy produire. mais intelligence mooy contourner. donc sol soo lijjantiwul fii doo doo dem donc euh, euh, c'est là qu'il faut commencer maintenant pour le reste c'est, c'est pas compliqué hein d'abord jàpp naa ne euh, yéen ñi nekk ci secteur bi euh, li ngeen ci xam xaw ma asaka ji li ngeen ci xam bu dee téeméer man li ma ci xam ma tut benn donc dama bu dee damaa war a toog wax ne nii ak nii lay demee damay nax sama bopp. Mhm. loolu la loo ñu mhm. baree bare foofu laay wuteeg ñoom. Mhm. daal dañ la foog nga woo expert yi nga xam ne ñoo xam. ngeen ñëw réfléchir ci nag ngeen mën a ah. songee mbir mi si si ça c'est vrai. bare jàpp nañu dañoo war a ñëw ne. Mm-hmm. damay def lii def lii def lii def lii. Mm-hmm. damay non. loolu d'accord naa ci. Mm-hmm. dañay wax. objectif bi fondamental lii la. humaines yaa ngi fi. expérience baa ngi fi. compétence baa ngi fi. nga ne gars yi dajaloo leen. wax ma nu nuy a def ba yegg fee. dinañ la ne nii la ñuy def nii ne nii nii nii dina laaj lii lii lii lii nga teg affaire bi dem macha allah e je pense que loolu daal na xel bu baax a baax parce que je pense que dama koy wax chaque fois ñii nga xamante ni ñoom ñooy yoo am ñoo jàng mbir yi am xam-xam bu leen jiitalee rek duñ daanu mais a chaque fois dañuy jiital ñoo xamante ne peut-être xamu ci mbir mi dara donc après dañuy laaj duñ laajte exactement dañuy tëju mhm, dañuy tëju bind mhm. te bu ñuy bind mhm. oh doy na waar <laughs> dama dem marché Kermel ñu wan ma benn y a un grand bâtiment boo demee marché Kermel. ok gars yi bi ñu koy def plan yi bind. laaju ñu marché bi. wala dañoo leen a laaj ñu ne leen nii ak nii ak nii ngeen ko ñu dem tëju def la leen. marché baa nga fa euh, bâtiment ba quatre milliards. ça fait peut-être am na fa peut-être quinze vingt ans kenn utilisé wu ko mu c'est le Sénégal <laughs> mais yaakaar nañ ne quand même euh, avec initiative yi ak projet yi eh, dina changer parce que ñun en tant que des jeunes aussi euh, loolu moo tax ñuy def li ñuy def nii yëpp parce que essayer susciter le débat tey jii nii euh, émission yi ñuy def nii dinañ ciy waxtaanaat tu vois ci réseaux sociaux yi dinañ ci wax par épisode bi ñu def nii dinañ ko publier ci réseaux sociaux yëpp. di nga ko publier si suñ plateforme yëpp ba pare organiser ay ay ay jotaay ak ay experts yi ñu waxtaan ci. Ah waxtaan ci lépp parce que. je pense que loolu mooy tax après euh, Sénégal avancé. je pense que xam naa ne temps bi presque jeex na et dernier laaj bi ma laajte rek parce que loolu euh, ñu bëri envoyé nañ ma message ni ma foog nga laajte ko mooy affaire euh, fintech c'est-à-dire tey ji nii da ngay dégg ñuy wax affaire bitcoin a xaalis bi ñu nit ñi di utiliser nii tu vois ñaan nee bi waratul. dañoo war a toxoo ci bitcoin yi maanaam xaalis bi nga xamante ni doo ko gis sa loxo yi mais c'est virtuel tu vois déjà sax am ñu ngi koy commencé ki parce que wave yi ngay gis ni yëpp ci fintech la bokk ah, ak euh, Orange Money alors tey yow loolu est-ce que yaakaar nga ne tey jot na ñu ko dëgg-dëgg fii ci Sénégal tu vois ba nga xamante ni tey euh, jënd ak jaay mi dina gën a mën a dox te nit ñi aussi dañ économiser seen temps duñ déplacé wu mais aussi am na ay challenge parce que tey boo demee ci àll bi su naree utiliser fintech boobu noonu wala bara fay ak wave amul connexion internet tu vois nan nga gisee tey euh, domaine boobu noon maanaam affaire fintech ak affaire bitcoin manaam monnaie électronique. maanaam xam nga. Euh, xam-xam. Mhm. maanaam boo ko amut. Mhm. daal doo dem. doo dem exactement. kon nag yii ngay wax. dafa mënta ñàkk. <laughs> comprendre nga. exactement dafa mënta ñàkk. Mhm. question bi kay mooy nu ñuy fexe ba. gars yi duñ ñu ci jëkk. gars yi duñ ñu ci raw. mbaa bu ñu rawee naka la ñuy fexe ba dabu. loolu question bi question bi donc euh, mhm. c'est une question actuelle yi mu laaj mooy yi nga jot a évoqué euh, euh, c'est pas compliqué ay connexion c'est pas c'est pas compliqué. Mhm, mhm. ah quand même. yoroon naa. c'est quand même le gestionnaire des des fréquences. fii rajo yi bare maa leen jox fréquence. macha allah. dégg donc c'est pas difficile moi je crois que. Euh, su ma nekkoon président euh, damay taxawal euh, benn task force comme on dit boo xam ne mooy réfléchir ci stratégie yi ci tactique yi ak ci moyen opérationnels yi après qu'est-ce qui reste c'est implémentation faire voter des lois mmh. pas des décrets des arrêtés et cetera affaire yi avancé et maintenant évidemment au fur et à mesure les difficultés apparaissent. suivi régler di mhm. avancer. si si si macha allah non franchement je pense que euh, en tout cas man ça me bu baax a baax tu vois réponse yi am nii parce que dafa am ñaari mbir yu mboole muy expérience ak xam-xam bi ngeen am. ak mébét aussi bi ngeen am pour pour pour pour avenir bi tu vois et je que ñun jeunes yi d'habitude loolu moo ñuy manqué expérience mais aussi xam-xam daf ñuy manqué des fois xam bi mën nañ am ci njàng mi expérience bi mun nañ am bu ñu demee liggéey mais expérience bi aussi mun nañ ko am buñ toogee ak ñi nga xamante ni ah am nañ expérience bi war ko a partager ak wax ñu fi ñuy jaar donc loolu moo tax euh, franchement euh, kontaan naa trop tey ci suñu waxtaan bi et je pense que yegg si nañ pratiquement ci fin bi euh, lan moo nekk sa moo de la fin lan ngay tëjee waxtaan bi waaw mooy Sénégal rek hmm. bu bëggee dem moom rek mënu ci génn Euh, je suis un panafricaniste euh, mauritanien ngi fii euh, Mali Guinée Guinée Bissau Gambie boo poussé tuuti Burkina Niger dëkk yooyu amul jàmm amul jàmm donc responsabilité ku war a jiite Sénégal mooy fexe ba jàmm am mm-hmm. parce que bu jàmm amee lii lépp ci lañu koy mën a def sans problème bu jàmm amut kenn ku ne la muy xënte mooy nu may fexee ba dem doo tal naan damay toog di def non nu may demee donc euh, c'est très important ensuite c'est la civilisation du virtuel euh, les frontières n'existent plus et les cultures s'entrelacent comme maanaam daal euh, moo taxoon ci ñaar fukki at ca ginnaaw ma ne mhm. préparer le Sénégal mhm. à son entrée dans la société de l'information looloy vision njiit boo amut vision doo dem vision à long terme alors mhm. euh, voilà il faut li ñuy wax yëpp ñu sóoraale ne on a des frères tout autour yoo xam ne dañ koo war a séq évidemment euh, boo jiitoo jéng mën ngaa tiire ñi ci des donc nañu fexe ba suñu euh, maanaam maanaam maanaam euh, leadership leadership bi mm-hmm. affirmé wu. Mm-hmm. ñu ñu ñëpp d' accord ne. Mm-hmm. Sénégal daal ñoo ci raw. macha allah euh, nañu fexe ànd ak ñoom pour demandoo. Ah, te yaakaar na am naa yaakaar bu wér ne compétence yaa ngi fi. yaa ko doon volonté baa ngi fi. exactement si si te itam euh, expérience baa ngi ñëw. macha allah macha allah merci merci beaucoup. merci beaucoup euh, gërëm. ok seen techniciens yi. waaye ak ñi ñuy seetaan. ok merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président di leen wax aussi que ne euh, tey moo nekkoon suñ premier épisode maanaam ci podcast Wolof Tech bi nga xamante ni moom lañ jagleel élection présidentielle deux mille vingt quatre yi suñ mébét nag mooy dem seeti bépp candidat waxtaan ak ñoom. buñ paree li ñu waxtaan ñu teg ko ci euh, ci ci ci internet bi a xam tu vois yi débattre ci comme ni ñu ko débattre ci bu ñuy waxtaan ci intelligence artificielle bu ñuy waxtaan ci euh, crypto money wala ñuy euh, donc dañuy jël émission yi après xaar leen ko ci réseaux sociaux yi dinañ ko teg ci réseaux sociaux yi yëpp après débattre ci kenn ku ci nekk wax ci sa xalaat après ñu partager après jàll ci benn épisode incha allah donc ñu ngi jox dig daje incha allah ci beneen épisode ci ci podcast Wolof Tech merci ñu faral